sëñ bi daa njëkk a bind bismillahi rahmaani rahim daal di ne maam Thierno gannaaw bu ma jiitalee la gën a yàlla ci nuyoo lu ko nuru maa ngi ñaan yàlla dolli ma leen a fayal aw yiw te dolli leen a fegal faw lépp luy xeetu lor na la wóor ne nag Ahmadul Muxtaar dara teewu ko lu may dama doon xaar ku bayiko ci yow ku ñu doyloo ci secret ndax daa am secret boo xam ku wóolu rek mënu cee ñàkk ci nga yebal nag mu ñëw na indiwaale loo xam ne ci laa lay defal li la tànnal fii mu jëm ci yow